da nga koo wax rek waaye yàq yàq mel noonu yow day diine islam moom rek nga daan doxe moom rek ngay def xam naa li ci yees ci nit ñi de mooy wax ji ndax da ko mus wax waaye loo wax ci rajo bi lu ne saa su noppee nopp daloo ndax li ngay wax ci rajo bi kat amul kenn ku ko mus a wax juróom ci diis ko wax diine l'islam de yaay borom de ci moom rek nga ne de waaye nag xam naa am nga ñëpp de àddina sëpp de war nañ laa xam naa mënil xam de waaye nag ah wax nga wax nga ñëpp de li fi xew lu ne te weesu di jéggeesu la ci xamees na lu tax li ñëwit te du yem fenn diine islam bokkoo sa yoon nekku ca wax ngaa ñëpp de nun day jox nga nu ndam nun day am na nu jiital ci nun ñii muri am na nu ndam am na nu jiital ci da nga koo wax rek waaye moom nga yàgg jëfe de moom nga mos jëfe faaw dugoo ci lenn indi ku lu dul defar nit ñi nit nit yow li la yittewoo mooy nit ki yaay yaa defar yaay defar nit ñi fi mu ne sëriñ bi tabax yi baax na yoon yi baax na sakatoo euh, euh, yi sax baax na leneen ak leneen baax na loolu lépp kat nit mu jóg nit ki nag bu defarul loolu li du ko mën a jëriñoo ci biir lislaam ndax kat am na réew yi réew yi ca histoire ya ñoo xam ne am nañu ay gratte ciel ay taaxi kaw yu rëy rëy rëy am nañu cinéma am nañu lu ne waaye kat yàlla bu nu mel ni ñoom moo tax ba nga tàmbalee ca xel koom tàbbal ci nit ñi nit ñaa fa weer genn wàll defaroo nañu fa nu benn saalu bi musula defaroo nu jóge ca ndigal yi télé yi sa jëf yu rëy yi bër ci démboo jaay tax ma ne ci rajo bi yow waayu waa ko nakoon ñoom de ku xamam kooke de ku muy teewoo jàppal ni li teewoowul rek loo lekk sa àddina ak sa àllaaxira day di nga jàpp jàppal ni di nga ci am ndimbal na leen